إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه جل وعلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون bokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom ab jaam daa war a yëg ni fu mu mën a toll daa war di sant yàlla jalla waala war a wéetal boroomam ji ko jaamu te ban koo jaamoo lu dul la ko yonentam ba alayhi salaatu wasalaam jàngal sunu xutba tey mi ngi jëm ci mbir bu mag lool bu ëmb mboole mi jullit ci mboole mi waxtu ca mooy la nga xam ni mooy ak toroxlu goo xam ne dañ ko war a toroxlu ci suñu biir julli yi ngalla way mbokk jullit suñu borom yàlla mu ngi dégg déggee fiir dawsil aala nga xam ni mooy place ba gën a kawe ci aljanna fala yenent yi dëkk ak siddiqiin yi ak shuhada ak saalihiin dara tiinu ko lu dul arshu rahman suñu borom woone melokaani ña fay nar a dëkkee yal na yàlla boole ñu ca ñam ca jëkk a tudd qad aflaha almuminuun allazina hum fi salatihim xaashiuun texe ne de ña nga xam ne humul waarisuun allazina yarisuun alfirdaws texe nañu ñooñu mooy ñan ñu ci jiitu mooy ña nga xam ne ay jullit ñu gëm lañu waaye bu ñuy julli dañuy toroxlu ci seen biir julli loolu moo tax ba bokk na lu war a nekk itteb jullit ah lay tax ma texe àllaaxira mooy ma toroxlu suma julli amoon naka lay def ba toroxlu ci suma julli awalan mbokk jullit xamal ne julli gi day suñu borom yàlla moo ko yëkkati def ko muy piye bi yenu diine ci yonent bi aleyhi salaam nee ni piye bi yenu diine nit ki mooy julli nu sa diine rafete noonu la sa diine noonu la sa nu sa julli rafete noonu la sa diine di rafete noo sàgganee sa julli noonu la ngay sàgganee sa lépp diine muy ahmadu diin ñaareel ba xamal ne lu ëpp fukki place ci alquran suñu borom mi ngi baamu aqimu salaa aqimu salaa taxawal leen julli taxawal leen julli taxawal julli ak julli bokkul taxawal julli mooy def ko na ko yàlla gërëme waaye bokk na ci loolu it mbokk jullit islam bi juróomi ponk ñoo ko téye ba ca jiitu mooy shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah waaye ba ka ñaareel moom mooy la nga xam ne mooy taxawal julli kon yëg ba nga yëg loolee fokk mu yóbbu la ci julli googee nga màggal ko suñu borom yàlla mboolem li ñu sant ci diine azaka ya koor ya aj makka ya bàyyi riba lu mu mën a doon day yónni jibril alayhi salaam na ko demal ni muhammad lii laa digle lii laa tere ba mu des julli daf ne jibril demal jëli li mu muhammad suñu yonent yàlla ànd ak jibril xotti asamaani juróom-ñaaru dem ba yegg foo xam ne malaaka musu faa teg tànkam mu wiit fa ak boroomam ca la ko borom bi jox julli da ko demal na sa xeet bi nañuy julli juróom fukki yoon ci bés bu nekk juróom fukki yoon ci bés bu nekk mbokk ci xéewal gu yàlla namm suñu yeneen te dajeeg yeneen ci yàlla Muusa mu ne ko ay Muhammad sa xeet du ñu àttan lii demal ñaan yàlla woyefal ko yeneen bi di dellu di dellu ci Muusa mu naan ko dellul muy dem ba mu des juróomi julli loolee ba nga xamee ni nii Moussa ñu ne ko dellul mu ne ko rus naa delluwaat ci yàlla ca la ko borom bi jàll wa ala woowee ne ko ay Muhammad maa yubaddalul qawlu ladayya samay kàddu du soppeeku sa xeet buñ julli juróomi julli yi ma considéré ne julli nañ juróom fukki julli ay yéen bokk jullit mboolem xeet yi fi jaaroon yàlla santoon na leen ay julli ñun yàlla wërsëgal ñu juróomi julli yi ñuy julli xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwee yowmal qiyaama ñi ngi leen di wàññil bés bu nekk daa nañ julli juróom fukki julli loolu muy waññe ne mbokk fajar goo waroon a julli jàppal ne lii fukki fajar la woon yàlla woyofal ko ba muy benn ngalawaay loolu war nga koo jox gëddaam fukki tisbaar la woon yàlla woyofal ko muy benn tisbaar kese war nga koo jox gëddaam mbokk julli mooy lii dalal bakkan julli mooy la nga xame ni nii mooy dalal ab xol looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam heure bu jafe-jafe masaan am daf naan arihna biha ya bilal bilal noddal bu noddee ñu julli dal daa di am ca la nga xam ne muy nit ña loolu it la meloon sallallahu alayhi wa sallam heure bu ko mbir masan bett tiis ci moom kaana ida asabahu shay'un fazi'a ila sala lu ko masan bett rek day jóg jëm ci julli daana wax ni kaw suuf li fi nekk ci bànneex yépp te moo ne aka bari jongama yaa ngi ni tool yaa ngi lekk yu neex yaa ngi naan yu neex yaa ngi waaye jëm sallallahu alayhi wa sallam daan wax ju'ilat qurrata ayni fi sala lii seral sama xol dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ma taxaw ci kanamu borom bi di julli mbokk yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam bi muy tàggatoo xeet bi bokk na la mujj wax ak sahabatul kiram ali ibn abi talib moo koy nettali nee na kaddu yi mujj génne wax kook sahaaba yi mooy assalaa assalaa maa ngi leen di dénk julli maa ngi leen di dénk julli maa ngi leen di dénk ngeen rafetal ci jaam yi yàlla teg ci seeni loxo loolee mbokk kon ñu war ci góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax mu war ay matukaay yoo xam ne jullit da ko war a xam heure boo xamee ni nii mi ngi jëm ci julli awalan mu xam ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala du ne geste yi ngay def rek la soxla ci yow taxaw ruko sujud déedéet mbokk jullit loolu bàyyi muy sax mën nañ ko ñi nekk terrain d'entraînement yi daan def yu demee noonu kon yàlla subhanahu wa taala bi mu naan ñu taxawal leen julli mbokk julli yooyu dafa am ay shuruut charte yoo xam ne moo koy jiitu am ay ponk yu nekk ci biir am ay farata ak i sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tënkoon lépp ca kàddoom gu kawe googe sallu kama raaytumuni usalli julli leen ni ngeen ma gise may julli naam ñun gisuñu ko sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla mi diggoon dana matal diineem ci nam doon jullee borom xam-xam yi tënkal nañ ko ci ab téere allahu akbar ba asalaamaaleykum dara bàyyi wuñ ko ci ngi noonu dellu lu mel ne sifatu salaa bu cheikh nasir din albani ak yeneen sifatu salaa yu bari yoo xam ne borom xam-xam bind nañ ko kon mbokk looluy julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne daa ëmb ñaar ëmb geste yam doon def ak toroxlu ga nekkoon ci moom sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne heure bu mosaan taxaw di julli amul lenn loo xam ne daanañ ko gis mu yëngutu moo ci moom lu dul sikki moom bàyyi wane ne moom mi ngi jàng waaye mi nga jël loosam ba sëgg xool te place ba nga xam ne moom lay sujud sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk toroxlu ci julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañu wax ne nit ki day dana julli ba pare yàlla bindal ko fukki cëri julleem yépp mat na ndax bi mu ne allahu akbar ba assalaamu aleykum xelam yépp mi ngi koy bàyyi ci li muy def ak di ko wax ci julli gi na am mbokk bi ngay taxaw yaa ngi taxaw ci kanamu kan ci kanamu rabbul izzati wal jabarut ci kanamu aji bind ci aji moom ci aji borom kattan gi aji ki yor sa xéewalu àdduna yor sa xéewalu allaaxira sa borom boobu la bindoon min nutfa ci toq ma ni yu bind la ba nga toll nii ci kanam kooku ngay taxaw di wax ak moom di déyoog moom mbokk loolee nekk na loo xam ne nii lu màgg la taxawaay boobee ak la nga xam ne moom nga cey wax bu matee dal ca am fukki cër a rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na am ñoo xam ne seen cër du passé la nga xam ne mooy juróom-ñeent ñee juróom ñee ñett ñee ba baa nga xam ne koo xam ne benn cër lay am ci fukk yooyee loolee kon ñu góorgóorlu bàyyi ci xel ci jéem a matal suñu cëri julli zahiran wa batina mbokk jullit la nga xamee ni ni moom mooy julli googee gis nañu ne des na ko war a waajal waajal ba jiitu bokk na ca aji nodd ja nga xam ne day nodd nga bàyyi xel yow may war a wuy ji wala yow soxna ba nekk ca kër ga naroo dem wuy ji ca jàkka ja aji noddu jàngi lay xamal ne allahu akbar min kulli shay yàlla moo gën a màgg lépp yàlla dong ñu ko yeyoo jaamu ashhadu an laa ilaha illa allah muhammad mooy jaamam ba mu yónni woon ci ñun ashhadu anna muhammadan rasulullah jóg leen jëm ci julli gi jóg leen jëm ci texe hayya ala salaa kaay leen julli hayya ala falaa jóg leen ci li leen di tax ngeen texe adduna texe alaxira mooy bu waxtu julli jotee ñu bàyyi lépp jëm ci julli mbokk loolu la la julli di jàngal nga jóg dem di jàpp di raxas say cër ngir ka nga xam ne moom nga war a taxaw ci kanamam laabal ba ngay laabal zahir noonu nga it nga war a laabale la nga xam ne mooy sa biir laabal sa xol mbokk loolu su dee góor ñaa dig nañu leen nañ génn kër yi def ay jéego jëm ca jàkka ya bu ñu ñëwee ñaan yàlla ubbil leen njéggalam ak yërmandeem allahuma agfir li zunubi waftax li abwaaba rahmatik sunu yonente alayhi salaam ne ne bi nga tegee sa tànk ci jàkka ji ba baa ngay génnaat jàkka ji malaaka yi ñu ngi lay ñaanal allahuma ixfir lahu allahuma arhamhu ay yàlla yàlla na nga ko jéggal yàlla na nga ko yërëm loole nekk farata ca góor ña doonte ne jigéen ju ko def yàlla bindal ko la muy bindal jigi góor ña mbokk julit heure boo xamee ñi ni taxaw nañ bay julli na doon sa kër la na doon ci jàkka ja war nañu liqaamaat fàttelu la aji nodd ja fàtteli woon hayya ala salaa hayya ala falaa wane ne jóg leen jëm ci julli gi jóg leen lii moo leen di texel àdduna ak alaxira su ko defee kon ñu taxaw jéem a jàkkaarloo xibla ba loolu lan lay jàngal jullit ñi dañoo ñëw ci jàkka ji ñun ñépp ñu ànd comme ni ngeen toogee nii noonu la ñu taxawee ñun ñépp ñu ngi bokk jublu xibla ba loolu muy wañe na mbokk jullit ñi benn jubluwaay lañu am muy allah jalla wa ala seen yaakaar yàlla la seen sukkandiku yàlla la seen woo ndimbal yàlla la seen waat yàlla la am maa nag ñu génn jàkka ji kee naan yaa cheikh kee naan yaa sëñ diw yaa sëñ caam yaa sëñ mbeng yaa sëñ nangam mbokk loolu wallahi lazi la ilaha illa huwa ci cheytaane la jógee nii ñu bokki jublu benn xibla noonu lañ war a bokk jublu ci suñu borom subhanahu wa taala amuñu kenn koo xam ne jullit war na koo yaakaar ca lam yaakaar war na koo yaakaar mu tegil ko lu mu ragal ku dul boromam subhanahu wa taala mbokk kuy julli fokk mu jàng alquran alquran joojee da nga koo war a jéem a xam rawatina fatihatul kitaab yaa ngi taxaw di bàkk yàlla di tagg yàlla di màggal yàlla yaa ngi taxaw di seedeel yàlla yow dong lay jaamu yow dong lay dimbali ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ñaan ko ñaan gi gën a màgg ci lépp ihdina siratal mustaqim teg ñu ci yoonu jub la ca ëpp solo mooy diina ju sell waaye mboolem sama mbiru àdduna it la nga xam ne fala sama njëriñ nekk sa ngërëm nekk ca yàlla teg ma ci loolu ihdina siratal mustaqim te musal ma bépp yoon bu sa mer nekk musal ma bépp yoonu kuréer mbokk aji judi ji lii lay wax ci alquran jooju nga xam ne suñu borom nee na law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah bu doon te ne alquran lañu wàccee ci montagne yi montagne yi daan nañ toroxlu ba xar ba màbb yow jurit bi nga xam ne kon yaa toog di déglu kaddu borom bi ngan la waay fexeel sa xol boobee doon xol boo xam ne bi toroxlu bàyyil xel heure boo jógee di rukkoo di màggal sa borom subhaana rabbi alazim sell ñel na sama borom bu màgg ba ba ngay sujud subhaana rabbi ala sell ñel na sama borom bu kawe ba toroxlu googee ngay toroxlu ci kanamu yàlla wareef la waaye toroxlu la goo xam ne moo lay yëkkati àdduna di la yëkkati àllaaxira ki gën a tedd ci kaw suuf mooy ki xam boromam wéetal boromam kii du jaamu kenn du doon jaamu alal du doon jaamu buur du doon jaamu ko koy menacé ndax wéetal gëm wéetal yàlla loolee rek mooy aju goraja loolu nag la la koy may toroxlu googee ci julli moo lay yëkkati teral la àdduna àdduna teral la la nga xam ne ni moom mooy alaxira ay yéen mbokk jullit heure booy julli bàyyil xel ne julli gii day mën na doon lu jafe lool te ña nga xam ne xamuñu valeur am waaye yow mi nekk di xam valeur u julli julli gi dana neex ci yow neexaay boo xam ne doo bëgg mu jeex wax naa la sànq ne yonent bi alayhi salaam nee ne lii mooy seral ab xolam looloo tax ba aji ki xam boromam dëgg-dëgg ko mel ne Ibnu Qayyim nam koy waxee day nee na dafa mel ne jën bi nekk biir géej ndax dana doy li biir géej déedéet bu génnee kay li am problème kon jullit la nga xam ne moo koy génne mu nekk ci leneen lu dul julli waaye tànk mi ngi ci julli xol bi day neex ndax déeyoo ga muy déeyoog boromam mu safaanoog ki xamul kuy boroomam ku mel noonu julli gi matee trois minutes sax dafa mel ni ko taxaw ci xali safara loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax taxaw ci julli gi toroxlu ci la ñu koy may mooy ñu dal bañ koo parax paraxee mbokk jullit parax parax munte ànd akoog dal dalal ci sa julli sa taxawaay njàng ma na mat rukkoo yi na mat sujud yi na mat bàyyil xel ni julli gi ngay julli kat mën na am mooy julli gi ngay mujj julli ci kaw suuf wallahi ñu bari bañuy dee julli gën mujj julli ku leen waxoon bii mooy seen mujj lu julli duñ ko gëm kon bàyyil xel mën na am bii mooy julli gi mujj ci say julli bàyyil xelit mooy lañ lay jëkkalaat yowmal qiyaama su baaxee sa mbir yépp baax na su baaxul sa dara baaxatul loolee mbokk ku nekk ci ñu war caa bàyyi xel la nga xam ni itamit mbokk moom ngay bàyyi xel ngiree sa julli googu nga mën caa toroxlu kaddu ga ngay baamu foo mën a toll allahu akbar léegi-léeg xel mi na yaru ca commerce ba allahu akbar xel mi na yaru ca soxna ya allahu akbar problème yi nga xam ne que allahu akbar looloo tax la ngay répété allahu akbar yàlla gën a màgg loolu yàlla gën a màgg loolu kon ay problème xaaral ba ma pare ak sama borom jalla wa ala lii ku nekk ñun da cee war a entraîné boppam waaye bokk ci di ñaan yàlla nag fu mu mën a toll xaritam bu màgg ba xaritam ya yonent yi yàlla yi bokk na ibrahim lu mu doon wax rabbi ijal nii muqiima salaa wa min zurriyati yàlla yàlla nag ma boole ci ña nga xam ne dañuy ah taxawal julli boole ci sa ak sama njaboot mbokk lii mooy la nga xam ne yonent bi noonu la meloon julli googee mu toroxlu ca yar ca saxaabaam ya keroog ba mu ne abubakar saddiq jël leen ko mu jiite mbooloo mi bokk na lu ko Aysa tontu ya abubakar munta nekk imaamu mbooloo mi ndax moom buy jàngal quran kenn du ko mën a dégg ndax jooy yi muy jooy kookoo gënoon ci xeet bi gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam omar ibn alxataab jiite na mbooloo mi di jàngal quran loolu feebar ko ay fan lu tax yonent bi alayhi salaam moo leen jàngaloon ne julli du ay geste kese waaye julli zahir la baatin la toroxlu ci kanamu yàlla la tàggat di bàyyi xel askar ya ak qiraatul quran mbokk lii képp koo xam ne yaa nga ca mooy saral sab xol faj sa aajo àdduna faj sa aajo àllaaxira teggi la ay stress dàqal la ay coono lépp loo xam ne nii ak ak lu jafe-jafe la heure boo jógee ci julli yàlla subhanahu wa taala wàññi daal di ko yombal ci yow lii kon mbokk mooy la nga xam ne dañ koo tënk ci sunu xutba tey di fàttali it ne gis ngeen ñu am benn retard tuuti lan moo ko waral mbokk juma ji comme ni ngeen ko gisee bu mën naan dem di jël lu presque lu jóge ay six cent personnes mën nañu wax tey quatre cent personnes yépp tey mënatuñoo dugg ci jàkket ñépp ci mbedd mi la ñuy toog looloo taxoon ñu ne xutba yi au lieu que ñu koy commencé et demi ba muy ba muy jeex deux heures muy trente minutes léegi nañ koy commencé moyen vingt bu ko defee lépp nekk vingt minutes lum bon bon ñi nekk ci mbedd mi daal ñeen teggil dix minutes donte ne ne ñooñu nekk ci mbedd mi it na am suñu warugar la ñu woyefal comme ne yonent bi doon woyefal waaye yéen tamit maa ngi leen di bégal ngalla waaye góor-góorlu leen tey bu la ajjuma rawee ci biir ëllëg bu mu la raw waay waaye it tamit bu loo yàlla nattoo yaa ngi ca mbedd ma xalaatal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan nekk vingt jours ci désertu Arabie saoudite bi ghazwatu Tabuk bi mujj génn sallallahu alayhi wa sallam vingt jours def na ko ci àll bi ca ñoom dañuy dem quarante cinq cinquante degré ci seen kaw lay taw ci seen kaw la naaj bi di tàppe loolu lépp ngi di yëkkati kàddug yàlla looloo tax ba tey ñu toog fi naan laa ilaha illallah muhammad rasulullah kon vingt minutes trente minutes yi ngay def ci tàngaay bi naam métti na waaye ngal la waaye na nga ko jàppee jaamu yàlla su ko defee yàlla woyofal woyofal ko ci yow yal na yàlla boole ñu ci ñuy toroxlu ci seeni julli yal na yàlla dëppale suñuy julli ak julli yonent ba sallallahu alayhi wa sallam yal na ñu yàlla fegal ci julli mboole mi nattu adduna ak nattu alaxira yal na ñu julli ubbil mboole mi xéewali yàlla adduna ak alaxira allahuma janna muqima salati min zurriyatina rabbana innaka samiun alim allahuma janna min alladina hum fi salatihim xaashiun allahuma janna min alladina hum ala salatihim daimun rabbana taqabbal minna innaka anta samiun عليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين